sëriñ Abdul Xadim Mbacke sëriñ Abdul Xadim Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1927 ci dëkku waajuram boobu nag di Mbacke Kajoor ci dëkk boobu nag la feeñe jamono nag ci atum 1927 mu dëppoog bisub ajjuma fukki fan ak juróom nag ci weeru tamxarit ci atum 1346 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 15 juillet 1927 Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke nag muy waajuram faye ko nag waajuram nag sëriñ Touba Xaadim Rasuul mu bokkitim nag ci sëti sëriñ Touba Seexul Xadim yi yi fekkanteeg nag seen maam ji nag ci kaw suufa waaye juróomi fan rek la fekkenteeg nag maamam nag seexul xaddiim nag ci kaw suufa moom turandoo seexul xaddiim wi nag di sëriñ abdul xaddiim mbàkke di doomu cheikh mohamadul amin baara mbàkke ak ku ñuy wax nag soxna xadi njaay moom sëriñ abdul xaddiim mbàkke nag am na ñu bokkal nag soxna xadi njaay ak cheikh mohamadul amin baara mbàkke ñu man cee ràññee nag jigéenam ba soxna xadi jatu mbàkke mi waajuróom nag cheikh mohamadul amin baara mbàkke fayee nag waajuróom wu jigéen wi nag di soxna xadi njaay ak moom sëriñ abdul xaddiim mbakke mi waajuram nag fayee nag ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim toll nag mi waajuram kenn rek nag la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen waaye am na nag ñum bokkal nag waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor soxna Xadi Njaay mii nag bi fi Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nag bàyyi ko sëriñ Alsey Njaay bokkoon itam nag ci jàmbaari sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yi nag lañ ko jébbaloon ba tax na nag soxna Xadi Njaay nag mook sëriñ Alsey Njaay itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag ku ñu wax soxna Awa Njaay bintu soxna Xadi Njaay bintu sëriñ Alsey Njaay sëriñ Fàllu Njaay ibnu soxna Awa Njaay ibnu sëriñ Alsey Njaay sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Njaay ibnu soxna xadi njaay ibnu sëriñ alsey njaay ñett nag la bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu waajur wu góor ak kenn nag kum bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen a ñii nag ñooy njabootu soxna xadi njaay ñii itam nag la sëriñ abdul xadim mbàkke bokkal nag waajur wu jigéen a bi mu matee dal alxuraanul karim nag moom sëriñ abdul xadim baara taalibe waajuram nag bu ñuy wax sëriñ moor jaare géey nag lañ ko joxoon ci dëkk bu ñuy wax na xawlu ci loxoy sëriñ moor jaare géey nag la jàngee alxuraanul karim nag ba mokkal ko ginnaaw sëriñ moor jaare géey nag ci dëkk boobu nag di xawlu lañ ko jébbaloon nag sëriñ mbàkke Mbacke Bousso nag ci Guédé ci loxoy sëriñ Assane Bousso nag la jànge xam-xam ginnaaw sëriñ Assane Bousso nag ci Guédé lañ ko jébbaloon na sëriñ Habibou Mbacke imam sëriñ Habibou Mbacke imam itam nag wéel am njàngam bi mu nekkee nag ci loxoy sëriñ Habibou Mbacke imam mook doomu Cheikh Mamadou Bachir bii ñu doon wooye nag sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru ñoom ñaar itam nag fekkante nañ nag ci loxoy sëriñ Habibou Mbacke imam ci ñii nag la jaar nag ci wàllum njàng ginnaaw ba mu jàngee ba noppi nag la ko magam nag sëriñ Abdoul Aziz Baara Mbacke jël yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nag mbaam jigaan fas yéene ko nag tarbiya ci loxoy magam mbaam nag sëriñ Abdul Aziz Baara nag la nekk ba ni mu sampe kër nag ci dëkk boobu nag di mbaam jigaan waajuróom wu jigéen wi itam nag di soxna Xadi Njaay itam nag fa la nekkoon ci mbaam jigaan googu sax nag la waajuróom wu jigéen nag soxna Xadi Njaay itam nag génnee àdduna ngir xamale leen nag waajuróom wu jigéen woowu sax moom mooy kan nag di soxna Xadi Njaay doomu soxna Jeng la ak ku ñuy wax nag sëriñ Mbéri Njaay sëriñ Mbéri Njaay mi nag taali bépp Cheikh Isaa Jenn la woon Cheikh Isaa Jenn itam nag moo ko jox nag sëriñ Moor Jaara Géey ci dëkk boobu nag di xawlu sëriñ Moor Jaara Géey itam nag moo ko jébbal nag soxna suñuy wax nag moom nag ci la ñu am soxna xadi njaay mii soxna xadi njaay tim nag bi mu wéyee nekk xawlu nag ci kër sëriñ moor jaare géey ba mat a dem kër nag la ko sëriñ moor jaare géey nag jébbal cheikh mamadou lamine mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii soxna xadi njaay moom nag mbaam jigaan nag la wéy nekk ba nim génnee àdduna nag ci atum 1960 ñu jëlee ko mbaam jigaan nag indi ko tuubaa ci armeer yu mag yi mi ngi ci wetu nag soxna mati lay di waajuru sëriñ cheikh sidil moxtaar Mbàkke doomam jooju nag di sëriñ Abdul Xadim Mbàkke mbaam jigaan googu itam nag la jëlee soxna ñu boole koog nag soxna Batoor Seck waaye moog soxna Batoor Seck itam nag amuñu nag ak njaboota ginnaaw soxna Batoor Seck moom nag lañ ko boolewaat ak beneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna jëmmu jóopa soxna jëmmu jóob mii na moom meññi nag ab taawam muy ku ñuy wax nag soxna Faal Mbàkke ak kam faye woon nag waajuróom nag Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ak ku ñuy wax nag soxna Mbàkke moom sëriñ Abdul Xadim Baara Mbàkke nag mu wéy nekk nag ci ndigalul magam ci dëkk boobu 1962 ci atum 1962 nag la dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag kër biraan mu dem fa nag dekkalaat dëkk ba bi muy jógee mbaam jigaan nag ci ndigalul magam nag sëriñ Abdul Aziz Baara am na itim nag ñum àndaloon nag ngir dem nag yeesalaat nag dëkk boobu nag di kër biraan te mbooloo moom àndaloon nag ñu man cee ràññee sëriñ Moodu Sow sëriñ Moodu Njaay sëriñ Ibrahima Ndaw sëriñ Moor Jóob ak sëriñ du Sow ci dëkk bu ñuy wax Ndakaaru ak ku ñuy wax nag sëriñ Siise Jóob sëriñ Mbàkke Jóob sëriñ Moodu Kan Jóob sëriñ Ceerno Jóob ñi nag la sëriñ Abdul Xaddim àndaloon jógee Viviane nag dem nag ci dëkk boobu nag di kër Birane bi mu eggee nag ci dëkk am na nag ay góor yàlla nag yu mu fa defar ci biir góor yàlla nag yam fa defar nag ñu mën cee ràññee sëriñ Nuuru Seck sëriñ Ibrahima Ndaw sëriñ Daouda Diop sëriñ Baara Ndiaye di ki mbokkal nag waajur bu jigéen sëriñ Galaay Diouf bu Kaolack sëriñ Baye Mor Ñang bu Touba Kër Ñang sëriñ Maysa Balla sëriñ Abdou Touré sëriñ Mor Diop sëriñ Mbay Fall bu Mbàkke Bawal sëriñ Ngaar Ñang Touba Kër Ñang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom àndaloon nag di liggéey nag ngir jëmmi sëriñ Touba Seexul Xadiim mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di kër biraan nekk nag ci suuf si nag di kajoor ci wetu dëkk bii nag di pekkees fukki kilomètre nag moo dox nag digganteem ak pekkeesa ci dëkk boobu itam nag la bàyyi koo dem màkkatal mu karama ci atu 1968 doomu cheikh mamadul faadal mbàkke ba di sëriñ alaaji baara mbàkke nag la àndaloon daana tukki itam nag ci réew mi daana tukki itam nag ci bitim réew ci réew mii nag ñuy wax Côte d'Ivoire ak réew mii nag ñuy wax États-Unis d'Amérique li taxoon nag sëriñ bi nag bàyyi woon tukki di soxna Muminatu Mbàkke nag bintu cheikhul xadim nag génnee àdduna da koo fekkoon nag mu génn génn nag réew mi ginnaaw bu mu ñibbisi nag ci la xamlee ne su génnatul réew mi nag ba dara nag di xew ginnaawam nag te du ko fi fekk bu ko defatul nag du am loolu moo taxoon itam nag mu gën a wàññandiku nag tukki nag yi doon amal nekkoon na imaamu julli korite ak tabaski te dëkk bii nag di Pikine di Ndakaaru sëriñ Abdul Aziz Baara nag mii magam itam nag moo ko fa joxoon ndigal amoon na kër itam nag ci Pikine amoon na kër nag ci Mbàkke Kajoor amoon na kër itam nag ci Tuubaa Guy Mbind na kër itam nag ci kër Biraan kër Biraan googu nag doomam sëriñ Siidi Mbàkke nag lañ fa dël nag kim faye nag magam ja sëriñ mbàkke madina mu nekkin nag ku am taalibe nag moom sëriñ abdul xadim mbàkke baara wax nañ ne nag magam nag sëriñ abdul aziz baara musu koo woo nag mu dem moom nag sol mbaxana taalibe googu mu amoon nag ci roon magam nag sëriñ abdul aziz baara taxoon na itam nag sëriñ abdul aziz baara itam fonkoon ko ba wax ne nag jataay bu ma fekk nag wala ma séen fa nag sëriñ abdul xadim mbàkke sama xel nag dana fa dal ba tey diggantee mag magam nag sëriñ abdul aziz baara président de la république nag bi fi newoon nag di abdou diouf invité woon nag sëriñ sëriñ Abdul Aziz Baara keroog itam nag sëriñ Abdul Aziz Baara rakkam nag sëriñ Abdul Xadim Mbàkke nag la waxloo kàddu yëfa sëriñ Abdul Xadim Mbàkke yëkkati nag ca pale ba yéemoon na itam nag magam sëriñ Abdul Aziz Baara ci ni mu fasoo itam te nekk itam nag kàddu yi dëgg loolu itam nag tax na itam nag biñ génnee pale bi sëriñ Abdul Aziz Baara nag mi ngi ko doon xamal ne yow sëriñ Abdul Xadim Mbàkke ku ñeme nga ndax kàddu yu mel nii nag nuñ ko mën a waru ñoo tax nag nga ragal leen noonu itam nag ni la amee woon nag ak taalibeem nag ci ron magam sëriñ Abdul Aziz Baara sëriñ Abdul Aziz Baara na ba pare bi daal mi ngi ko doon xamal ne daal sa sijaada gi nag rafet na sijaada googu itam nag bi sëriñ ñibbee nag la ko ko fob nag jox ko ko addiya noonu mu fonke woon sëriñ Abdul Aziz Baara sëriñ Abdul Aziz Baara itam nag tudde woon na ko doom ni la amee woon ak jaxasoo itam nag ak magam nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ba tax na sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag tudde na ko doom ni la amee woon wóllëre itam nag ak magam sëriñ abdoulahad mbàkke baara sëriñ abdoulahad mbàkke baara itam nag tudde na ko doom magam sëriñ cheikh sidil maxtaar mbàkke itam nag tudde na ko doom sëriñ basiiru mbàkke xujja itam nag tudde na ko doom sëriñ ahmed baara mbàkke itam nag tudde na ko doom sëriñ moustapha mbàkke abdoul aziz baara itam nag tudde na ko doom ak lu takkoo takkoo takku nag ci magi taalibe yi mu nekki nag ku jaxasoog nag ak ay magam jaxasoog itam nag ak ay rakkam jaxasoog itam nag ak mboolem nag ñi mu bokkal sëriñ tuubaa xaadim rasuul képp ku mu bokkal cheikh Mbàkke nag tudde na la doom yeneen doomu baayam nag yi mu bokkal xaadim rasuul ñu ci baree baree bari itam nag tudde na leen doom ay xaritam nag ñu gënoon cee ràññee sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ak sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Baara sëriñ Abdul Xadim Mbàkke Baara mu nekkoon itam nag ku am yërmaande nag ci taalibay Cheikhul Xadim yi waaye ku am yërmaande itam nag ci mbindee fi suñ boroom yi buntu këram nag la daa toog nag saa su ne ngir bépp jafe-jafe nag boo xam ne itam na ko soo nag mu fa ñëwoon mu laaj ko nag tàngal ji nag ñaata lay jaar lépp loo xam ne ni daal jaaykatu tàngal boobu nag yoroon na ko keroog sëñ Abdul Xadim Mbàkke nag na ko bi mu demee nag la ko ña fa toogoon nag doon laaj nag sëriñ bi looy doye nag tàngal ji mu leen di xamal ne daal kii di jaay nii ci la yor nag këram kon nag ñu jënd ko dong nag moom mooy tax itim nag jafe-jafey këram nag a saafaraw wax nañ ne itim nag nit daana ñëw ba nag jox ko ko saa boo masaa xëy daal gisoo sëriñ Abdul Xadim Mbàkke xamal ne daal daa yor nag lu mu jox kenn mu wéy nekk nag ci kër yim am moo xam Tuuba Touba Mbacke Kajoor ba ci kër gi nag di kër Biraan wii itam nag di xettali nag mbindeef yi wii itam nag di sàmm nag ndonal waajuram ba nim génnee àdduna nag ci atum 2003 bi mu génnee àdduna nag ci atum 2003 ci kër Biraan googu nag mu nekkoon ba ñuy xool nag ay bagaasam kër Biraan googu nag fekk nañ fa këyit woo xam ne nii nag ci bagaas yi sëriñ Abdul Xadim Mbacke yi sëriñ Abdul Xadim Mbacke nag mu nga bind itam nag ci këyit wa ci kër Biraan googu nag la ko suñ borom boole mbooleem nag ñi nga xam ne nii lépp loo xam nii nag bala koo suñ borom a def moom mu yëg xaddi mbàkke baara mu nekkit nag ku fonkoon alxuraanul karim ba tax na ñetti fan yu ne nag daana wàcce kaamil bi nekkit nag ku fonkoon xasiday maamam yi waaye ku daa dimbalee nag saa su ne ci aw ñaqam nag ak ñaanam mu wéy nag topp nag ci ginnaaw ay magam sëriñ moodu baara sëriñ abdul aziz baara nag ba ci xilaaf ak sëriñ cheikh sidul muxtaar mbàkke nag la génnee àdduna ay magi waajuram nag ak ay rakki waajuram itam nag mu fonk leen li ko dalee nag ci cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul bachir mbàkke ba ci cheikh murtada mbàkke mi nga xam ne nii nag léppam la woon mu wéy nag doyloo cheikhul xadim ndoogit nag ci dëkk boobu ko magam dëloon nag di kër biraan ba ci atum 2003 nag mu génn àdduna borom dund gu sell googu nag soo delloo nag ci way yii ko doomam way daa gën a xam nag doomu cheikh mamadou lamine baara mbàkke bi nag moom mooy kan doomam nag sëriñ cheikh sidul muxtaar mbàkke mi ngi ñuy xamal nag lu baree baree bari nag ci dund waajuram woowu taxawaay nag bu waajuram amoon nag ci mbokk taalibe yi nu mu fonke woon nag njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke gi njariñ nag gum amaloon nag askan wi taxawaay bu yaatu daal bu sëriñ Abdul Xadim Mbàkke nag doon dundee moom la ñu nag doomam nag tënkal nag ci ay way di sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke ñu lu ko bismillaahi ma jóg tey way fi mbër ma ñu xam ngir dal ga ak mbaax ga ak nuróom nga Seex Baara ak roy gu mat ga mu rey maamam ja kay turandoom ba far ko doon mooy sëriñ Abdul Xadim Baara lewet te yaatu ànd ak fi duure bëgg lool njabootu Seex Bamba geeg waa kër sëriñ Baara yemoon na way moom ak nam meloon nuru woon baayam sëriñ baara wallaahi kii di sëriñ abdul xadim ku ko gëm doo jàqi doo jeng doo juyook sëriñ baara waykat yi yéen maase leen yéen ñépp way sëriñ abdul xadim mi la ndax géej la ci seex baara te maase fee nag ci géejam gi te sar ca lab ku lab ci géejam gi doo juyoog seex sëriñ baara gin naa ne kii di sëriñ abdul xadim ku ko am ñàkkoo sëriñ bamba te ñàkkoo sëriñ baara ndax moom la seex bamba mujjee gis ci sët ya am moo tax ma naan kenn du Cheikh Abdoul Khadim Baara faj aajo nit ñi la daa dëkke di jox ku ko laaj lum ñaan mu am léegi ngir doole sëriñ baara waxtaane yàlla yóneen ak maam ja rek la xamoon ak gindi nit ñi di leen xamal sëriñ baara sagal nga seex baara ak seex bamba ak ñi ko wër sagal nga luy sët ci sunu maam soxna maam jaara tey sa njaboot nañu nii jubloo dëkke jubal te maanu doylu bu wér di samp ay daara duñ dox di xaccoo alal duñ ñaan te duñ politique te duñu wayaane gëmuñ ku sëriñ baara sëriñ baara sa taw bi fi mu ne ñépp ko naw ngir fulla géeg maanu géeg xamam nga seex baara sa dëddu géeg xam-xamam moo tax ba kenn yebul ñii di njabooruk sëriñ abdul xadim baara moo doon du baayam te roy maamam te mat li mu doon buy wax da nga xam ne mooy gayndeg sëriñ baara jooy na sëriñ siidi ndax dootuñ gis ku ne mel ca dëddu géeg doylu géeg nuróom nga seex baara na yàlla buur yokk ay leeram ca leera xaras ful ay mayam bam giseek maamum sëriñ baara te yàlla aar ak njabootam sàmm leen ba ñu doon tànneef ci waa kër sëriñ Abdul Xadim Bar amiin amiin nee leen amiin ma far taxawal saa wayu fii te ñaan ci barke Seex Baara sa dund gi am ngërëm ak barke faw ba may dëkkee ci liggéeyal sëriñ Bamba ak sëriñ Baara te yàlla def wayu doon mbégum muride te doon mbégum ku baax kii di sëriñ Abdul Xadim Baara way yooyu nag la ko doomam nag sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar Mbàkke way dikkim faye nag sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar général nag des mourides moom sëriñ Abdul Xadim Mbacke Baara mu bokk itam nag ci doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke yi nga xam ne nii ay kiimaan nag lañ woon ba tax na nag def na ay kiimaani kiimaan nag ci biiru dundam am na taali bépp sëriñ Abdul Aziz Baara bu amoon nag wërsëg am bis nag mu ñëw guy mbind nag doon ziyaare si nag sëriñ Abdul Aziz Baara sëriñ Abdul Xadim Mbacke itam nag buntu këram nag la toogoon yónni woon na kenn itam nag ci ay taalibeem doon na ko xamal la daal damal wool ma nag jëmmu jee ginnaaw ba mu eggee nag ba xamal ko nag li ko sëriñ Abdul Xadim yoon xamal ndaw la nag ne soo demee na nga wax sëriñ bi ne maa ngi ñëw ginnaaw bu taalibe bi ñëwee nag ba xamal lool nag sëriñ bi sëriñ bi nag mi ngi doon wax nag cëy yàlla waa ji de xam naa dafa yaakaar ne nag alal jëm am nag moo tax itam nag ma di ko woo waaye daa am nag lu ma ko bëgg a fanqal ñetti fan nag lañ ca teg taalibe ba nag génn àdduna sëriñ Abdul Aziz Baara itam nag doon xamal sëriñ Abdul Xadim Mbàkke na dem nag taxawul koko ginnaaw bu mu ko taxawoo ba noppi nag la doon xamal nag ki mu yónni woon ne ko keroog de xanaa yow laa yónni ndax lii laa ko gisaloon am na ku ñuy wax sëriñ cheikh gumbala nekkoon itam nag amérique di taalibeb sëriñ aboo mbàkke madiyaana moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke amoon na nag ay jafe-jafey këyit ci réew moomu nag di amérique ginnaaw bu mu ñëwee nag jàmbat ko sëriñ abdul xadim mbàkke baara sëriñ bi nag di ko xamal ne nag balaa yàgg bépp këyit boo soxla woon nag ci réew moomu di amérique itam nag da nga ci jot noonee mu ko waxee ay fan yu néew itam nag lañ ci teg sëriñ cheikh gumbala bépp jafe-jafey këyit wu mu nag daal di saafaraw ba tey ci kiimaanu sëriñ abdul xadim mbàkke baara yi bi mu nekkee nag ci tunduw kër biraan woow képp xam ne nii nag jaan mas na la faa mar soo ñëwee nag moom moo koy lugg bu fekkee ne nag day génn nag dëkk ba am mbaxanaam nag la fay bàyyi képp koo xam ne ni am nga jafe-jafe nag ci wàllu googu soo ñëwee nag mbaxanam yi lañ lay solal bépp jafe-jafe nag boo amoon nag daal di tàqalikoog yow ba tey ci kiimaanu sëriñ Abdul Xadim Mbàkke am na benn bis nag mu jógee itam nag Mbàkke Kajoor bi ñu génnee Mbàkke Kajoor nag la otoom paan ñu wër wër nag lu ko dépanne nag amuñu ko ginnaaw bu leen fa ab oto rombee buum wala lenn loo xam ne ni nag mën naa lonk itim nag oto ba na amuñu ko yoon ak sëriñ Abdul Xadim Mbàkke lañ jël nag ñoor gi ñooroon nag tubayam lonke ko oto ba te ñoor googu itam nag indi na oto bi Touba bi ko feebar bi daanalee nag ñu fa yéene ko yóbbu France ginnaaw buñ ko ko xamalee nag da leen doon xamal ne fas yéene wu maa am nag at yi sëriñ Touba am ba pare ma wéra di nag di génn réew mi nag di faju ji ay fan yu néew itam nag lañ ci teg mu génn itam nag adduna màggaluk safar nag ci atum 2003 di màggal goo xam ne ni itam nag moom moo ko fi mujjee fekk ginnaaw bu ñu màggalee nag ba ca suba ga bi muy waxtaan ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ni nag ñoo aju nag ci këram leen di xamal ne liggéey bi ma doon liggéeyal sëriñ Touba nag mat na sama digganteeg sëriñ Touba itam nag ci li ma àppoon ci ak dund itam nag mat na waaye ñeewantu nag guma leen fi ñeewantu rek moo tax itam nag boobaak mag ñu bari nag ñu fekke jataay ba nag daal di ñaanlu mu leen di xamal ne nag bu ngeen ñibbee itam nag bu leen sori samedi bii ñu jëm nag na leen fekk Touba nag ci lay génn àdduna ba tey ci kiimaanu sëriñ Abdul Xadim Mbàkke màggalu Touba googu ba tey doomam sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ak doomam sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke poroxaan nag la leen yóbbu woon nag nag ñu doon jàngi ginnaaw bu ñu màggal see nag ba bëgg a delluwaat sëriñ bi nag doon leen xamal ne poroxaan nag dafa sori ci yéen damaa bëgg nag ngeen dem daaru marnaan ci kër sëriñ cheikh buso ngeen toog fa nag ba fan yii naka tey nag ci samedi boobu topp nag ci màggal gi ci lay génn àdduna bis bi mu waree génn àdduna nag moom sëriñ abdul xadim mbàkke baara doomam nag jim faye nag cheikh mourtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim la yabal nag di ko xamal ne soo demee nag bàmbay nga wax nag cheikh mourtada mbàkke ibnu mu ñaanal ma bi ñëwee Bambey ba wax turandoom nag li ko waajuram yónni bi mu génnee nag la ko magam nag sëriñ Muudu Baara Mbàkke woo di ko xamal ne daal sëriñ bi suñ boroom nag far na ko jël mu delluwaat ci biir nag yëgalaat turandoom loolu ñibbisi Cheikh Mourtada Mbàkke nag jóge Bambey nag ñëw nag taxawu nag xaritam bii di doomam jii nag di turandoo waajuram wi nag di sëriñ Abdul Xadim Mbàkke bisub keroog itam nag lu yéeme itam nag xew na itam nag ci kër sëriñ Abdul Xadim Mbàkke soxna Ndey Jóob nag moo aaye woon nag añ bi mu ñëwee nag wax sëñ bi nag ne ko añ bi nag noppi na sëriñ bi nag da xamal ne daal añ bi daal jërëgut a yàq bi waa kër gi xamee ne nag sëriñ bi wax ne ne nag añ bi nag bu ko kenn yàq woolu woon na itam nag mbooleem soxna yi doon waxtaan ak ñoom doon leen dénk itam nag njabootug boppam gi ak taalibe yi ginnaaw nag wi noppee nag la leen doon xamal ne suñu demee nag ba boori tàkkusaan nañ ma ko yëgal bi soxna Awa Jeng nag ñëwee nag doon xamal sëriñ bi ne daal tàkkusaan nag jege si na bi mu ñëwee itam nag la fekk ne daal sëriñ bi nag nekkatu fi ñu yëgal ko nag njaboot gi rawatina nag ab taawam nag sëriñ Moodu Baara Mbàkke ak nag ay magam nag yi nga xam ne nii itam nag ñi ngi fi woon nag jamono jooju ak itam nag ay rakkam nag yi nga xam ne nii itam nag ñi ñaar fukki fan ak ñaar nag ci weeru safar ci atum nag ci gàddaay gi samedi ñaar fukki fan ak ñaar nag ci weeru safar ci atum 1424 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy samedi avril nag ci atum 2003 samedi 26 avril 2003 ci kër gii mu amoon nag ci Touba guy mbind ñu yëgal ko nag doomu sëriñ Touba Seexul Xadim ba di Cheikh Mourtada Mourtada Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul Cheikh Mourtada Mbacke nag moo bàyyi ko Bambey yu mag yi ci teewaayu nag mboolem nag kilifa yu takkoo takkoo takku nag ci yoonu murid wi soo delloo nag ci marché nag bu ko Serigne Pape Alé Diop nag defal mag ñuy wax nag lu bare bare bare bare bare nag ci dundug maamam ji ak taxawaayu nag maamam ji melokaan nag ju maamam yoroon nag njariñ nag lu mu amaloon nag mbindee fi nitug suñu boroom nag gu mu doonoon doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara baara nag yim séqaloon Cheikh Mamadou Lamine Baara itam nag bëgg nag guñ ko bëggoon lu baree baree baree bari daal lañu sëriñ Pape Alé Diop nag di xamal doom nag sëriñ Abdou Lahad Diop la moom soxna Faati Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ñu teewlu nag marché nag bi mu defal nag sëriñ Abdoul Khadim Mbàkke ma jog taxaw tag mbër moo xam ne kenn mënu ko fi diini teg ca rijaalullaahi kenn gënu ko moo man ñëwey man ñi teew man yit ñi fiy xale ñëw ngir li dëxañ ci mbiram moom képp jamonoom turwaa di abdul qadim bamba ko jël tudde ko sëñ bamba bam gërëmee bay wax ne akramani baaqil qadim dane maay abdul qadim séñe ko abdul qadim mooma mooy mii nii bila royabin baaraa ko jël def ko muy ab jëmm ngir wane ko jaaraam abdul qadim yow mbër nga am nga lu rëy sa cër ku dul bamba ak sëñ baara rek xamu ko yaa dund sunna bu wér lislaam ji yaay ki ci xér yaa sell sellal la daam woote yaa wuyu akrim bi shayqin karimin yut'imul فقرا لحما طريا لرب زانه النسك عبد القديم الذي يروي منادمه عظب العبادات ما في عمره الشرك أخلاق الكرام معا وعقد سؤدده يصونه الملك يهش لله مهما هش ثم له بغض عظيم لمن بالله مشترك وكان يحجب من آتاه محتجبا حجاب ستر بليغ لا له الهتك شيق كريم فقيه وارع فكه غشمش muxtachamun laysa fi jamaalihil baraku ma wax la tuut ci mbiram kon tey nga xam ne sëriñ abdul xadim roy na xayrul xalqi far ko du tooñ du jëw nit ak kuy jëw nit du toog fa mu toog du gëdde bay jànni nit koo xam ne njub jamu ko day dëkke jox ku ko laaj te lum la jox du ko waaj te buy joxit du ko xaaj du jox la it waxe ko du wax lu dul ay xikam du wax lu dul la mu gëm waat naa ne moo bëri ndam firdawsi moo dëkke ko moo fonk ak mbokk moo laa biir te yëg dëkkandoo bëgg waa ko moo fonk qur'aanu zikrullahi mooy ki ci man xaqiqa mooy ki ko am sariya moo dund ko moo fonk boppam te doonoon nit bëggul yëfi dof am fulla am fayda am fit lool ba kenn yóbbu ko noo man di toll dalay wax ay dagam du la jay moo xam da ngay daal di bég moo xam da ngay ko baatin ba yéemoon na waa duniya te ñépp ko xam wek leen ko ndax kat ku koy fontoo boroom duma ko jëfal na lislaam ji jëf joo xam ne deesu ko miim lislaam ji bég na ci moom maamam ji it bége ko yar nay njabootam a dundee woon ñoom ñëpp kenn moyu ko ku weddi lii na nga xool sëñ Modou May xalifaam mbokkam yi ñëpp ko naw te diine moom jëmu sell moo maandu moo doyloo itam la mu am mo fonk xam-xam te gëm maamam te mo nduru ko noppal na Seex Bàmba ndax génnul ca waar wa ko war mooy Cheikh Abdul Xadim te kenn weddiwu ko te saa yu àddoo ca péncum maam ñëpp xamaat kan mooy Sëriñ Baara ñaan leen yàlla jàppale ko wa hakadha al murtada aquhu aalimun al jarakañ ku xam baax bëgg ko sëñ Murtada moom Serigne Abdul Qadim ku ko xam bu dee waxal yàlla rek moom xam ne kenn gënu ko topp baayam Serigne Abdul Qadim ma ko topp it xalifaam sëñ Moodu kenn sikku ko doomam ju jàmbaar ja deesul fàtte mukk mbiram sëñ Siidi yàlla nañ ko booleeg baay ba tëñ tënu ko booleem njabootuk Serigne Abdul Qadim nañu am ridan minallahi ndax seen baay ba kenn mënu ko amiin amiin ne leen amiin ci barke Serigne Abdul Qadim baare feek yoon leen ba kenn moom Serigne Abdul Qadim Mbàkke nag ay xalifaam Mbàkke di kiim faye nag magam nag sëriñ Moodu Baara ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mooy ki ko wuutu nag ci atum 2003 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu séqal sëriñ Abdul Xadim Mbàkke moom sëriñ Abdul Xadim Mbàkke nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku ci luñ tuddee ak màggal bis bii mu feeñoon jamono nag ci Mbàkke Kajoor di fukki fan ak juróom nag ci weeru tamxarit moom nag la njabootam jàpp nag di ko ci fàttaliku ci kër gi amoon nag ci guy mbind màggal gi itam nag màggalug bëccëg la